messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale. Cet après-midi, le PDS accuse le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, de soutenir Modou Diagne Fada dans son combat contre ses frères libéraux. Renouvellement du groupe parlementaire des libéraux et démocratiques, Aïd Mbouch, annoncé à la présidence. Modou Diagne Fada s'en félicite, d'autant plus que la présidente du conseil départemental de Bambé est signataire de leur mémorandum. Néanmoins, Pape Biram Ndiaye et compagnie parlent de mascarade sur le principe et les motifs évoqués pour enlever Modou Diagne Fada de son poste de président du groupe parlementaire des libéraux Mame Biram Diouf Mardien. Maître Abdoulaye Wade qui change l'architecture du groupe parlementaire libéraux-démocrate Aïda Mbodj qui Fada à la présidence, cela ne surprend guère par Biram Ndiaye. la systématisation, c'était que le comité directeur, le parti donne carte blanche au frère secrétaire général national, Maître Ablaïvad, euh, de prendre les décisions qu'il souhaite prendre, n'est-ce pas, quant au renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale. Or, le même jour, à 14 h déjà, Maître Ablaïvad avait déjà pris les décisions parce qu'il en avait déjà informé les principaux concernés. L'ancien député ex-dirigeant du MEL dit respecter la décision de Maître Abdoulaye Wade, ce qu'il ne digère pas, ce sont les motifs avancés. Tout le monde sait que Fada et nous autres, nous avons été dans tous les combats. Le troisième argument qui a été avancé, c'est que euh, le, euh, le Fada ou bien ses partisans ont agité la question du plan B. Or, le parti avait systématisé qu'il n'y avait pas de plan B. Le seul plan, c'était Karim Wade. Fatal n'a jamais, ne s'est jamais prononcé sur cette question, même si, si par ailleurs, il a son point de vue là-dessus. Euh, certains ont parlé de parité. Si, si euh, ce motif-là était valable, de, de, cette législature, la présente législature a démarré depuis juin 2012, si je ne me trompe. Donc ça veut dire que normalement au mois d'octobre 2013, Moïdiane Fada devait céder la place à une dame. Ça aurait pu être Aïda Mboy, ça aurait, pu sagement si elle est députée. Donc euh, sortir euh, ce, cet la parité, moi, ne tient pas la route pour moi. Un cadre de concertation élargi aux partis réunis UCS, Bok Giskis, AGPADS, d'où le grand groupe parlementaire en vue, un schéma bien pensé. c'est ces deux composantes-là qui font marcher la démocratie, c'est-à-dire un pouvoir fort et une opposition forte. Parce que, vous savez, le système de ce qu'on appelle l'alternance, ça va, ça, ça, va, ça vient. Donc ce qui fait que, bon, si on ne fait pas en sorte que l'opposition, comme dans certains pays, soit respectée et, et reconnue dans ses prérogatives, ça aussi, euh, c'est pas, c'est pas bon pour notre démocratie. Maximum 10 députés libéraux que le numéro 2 du PDS, Oumar compagnie, chercherait à comptabiliser. L'essentiel est que le PDS soit réformé en combat de principe. Et le mot est une signataire de ce, mémorandum. Ça veut dire qu'il est en phase avec nous dans ce que nous sommes en train de faire. Les échanges avec d'autres députés se poursuivent. pour que la bataille juridique et administrative soit remportée ce mardi. Mame le président Sall a reçu hier le groupe parlementaire de la majorité. Il demande le respect de la parité dans le bureau qui sera formé cet après-midi. Une rencontre qui s'est tenue en présence euh, du président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, et Ousmane Tanor Dieng. Le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale, c'est toute une procédure avec des enjeux multiples. Chaque organe mis en place est essentiel pour la bonne marche de l'institution, euh, selon Maître Babou, que nous allons écouter avec Fatidien et Mardien. La session unique de l'Assemblée nationale ouverte ce mardi, le bureau, les groupes parlementaires, les commissions sont concernés par cet événement. Le règlement intérieur prévoit, dès le premier jour de l'ouverture, il faut passer par la mise en place des organes qui vont diriger l'Assemblée nationale, à savoir le bureau, les groupes parlementaires et ce dont les gens parlent moins, mais aussi les commissions qui jouent un rôle extrêmement important. L'Assemblée nationale aura un nouveau bureau, un renouvellement qui ne concerne en aucun cas le mandat du président de l'Assemblée. Les députés ont voté une proposition de loi au terme de laquelle le président de l'Assemblée nationale est élu pour cinq ans. Et cette mesure est d'application immédiate. Ce qui va se passer maintenant, c'est l'élection des vice-présidents, avec naturellement la parité. La formation des groupes parlementaires, un point essentiel pour Maître Babou, les enjeux sont multiples. La loi dit qu'il faut au moins le dixième de députés, à savoir 15, pour former un groupe parlementaire. L'enjeu, c'est que le groupe parlementaire, c'est véritablement l'organe qui fait bouger l'Assemblée. le groupe parlementaire est dynamique. Il est euh, constitué d'un président et d'un vice-président. Les commissions, la cheville ouvrière, leur constitution est capitale pour la bonne marche de l'Assemblée nationale. C'est là où le débat important se passe, mais dans des salles Vous ne les voyez pas, vous les journalistes. Vous, vous les députés que lorsqu'ils sont en plénière. le travail de la plénière a déjà été fait au niveau des commissions, où le ministre est présent. Généralement, chaque commission euh, doit avoir euh, 30 ou Et la loi dit que chaque député doit pouvoir s'inscrire dans trois commissions. L'ouverture de la session de l'Assemblée est très par les représentants du peuple. Fatidien, merci. Éducation à présent, le syndicat des inspecteurs et inspectrices de l'éducation nationale du Sénégal déplore le non-respect des protocoles d'accord signés avec le gouvernement. Le rencontre avec les autorités n'a pas donné grand-chose. Le syndicat des inspecteurs a également euh, remis sur la euh, table la question des heures supplémentaires pour les euh, formateurs en conférence de presse ce lundi. Pape Faraning Modou Le syndicat des inspecteurs et inspectrices de l'éducation nationale du Sénégal déplore le non-respect des accords signés avec le gouvernement. Il se dit peu satisfait de la rencontre avec le président, même si des promesses ont été faites. Euh, quand le, euh, le président de la République réunit les acteurs d'éducation, nous en tant que cadres, nous ne pouvons que saluer cette initiative. Nous nous dotons de l'efficacité d'une telle démarche. Il ne faut pas stabiliser le système dans les discours, c'est dans les actes que le gouvernement est attendu. Et à ce niveau-là, en ce qui concerne les inspecteurs de l'éducation, L'attente est encore très forte. Nous attendons que le gouvernement respecte ses engagements. Le syndicat invite ses camarades à se mobiliser pour le respect des engagements et la question des heures supplémentaires. Des inspecteurs, des professeurs qui interviennent au niveau des CRFPE qui sont pris en charge d'une certaine façon et depuis maintenant, depuis 2011, ça ans, il y a un vide juridique sur la question. Et nous avons toujours demandé, nous, que les textes soient pris pour justement aller carrément vers une indemnité de formateur ou d'autres formes de prise en charge. Le taux d'abandon très élevé inquiète aussi le syndicat des inspecteurs. Le taux d'abandon, c'est quoi d'abord euh, si nous prenons par exemple euh, une cohorte d'élèves, ces élèves doivent rester à l'école. Certains quittent l'école pour une raison ou une autre. Ces taux-là ne doivent pas être élevés. Alors, euh, si vous dites par exemple que ce taux est à 10%, ça veut dire qu'un élève est sorti de l'école avant de pouvoir bien sûr achever son, euh, son cursus. Alors un élève sur 10, c'est déjà beaucoup. les camarades de Samba Diakhaté alertent sur ce mécanisme de pilotage pour la réussite di paquet. ils n'ont pas manqué de déplorer les mauvais résultats des examens de fin d'année. Pape Farning, le syndicat des inspecteurs et inspectrices de l'éducation, s'est également prononcé sur la question de la fraude du concours des élèves maîtres. Selon le secrétaire général, le ministre a tardé de réagir. Samba Diakete, que nous euh, entendrons peut-être dans nos prochaines éditions. Les candidats de l'opposition à la présidentielle guinéenne dénoncent euh, des fraudes bulletin. Il réclame l'annulation du premier tour et appelle à manifester. Lendemain de vote, les Guinéens établis à Dakar dans l'attente des résultats, ils appellent les différentes parties à se conformer aux résultats des urnes. Mais certains Guinéens restent dubitatifs. Reportage au, master, au marché des Castors et à la rue Sandinieri, Aminata Mbaresso ou Tierno Laurent Mendy. Marché Castor, fief d'une forte communauté guinéenne. Tcherno et Bangali Kamara, deux partisans du président sortant Alpha Condé. Au lendemain de l'élection présidentielle, ces deux messieurs restent convaincus de la réélection de leur candidat. Alpha Condé, déjà, il a a gagné. En tout cas, donc, le deuxième là, il va repousser le deuxième mandat là. Rue Sandinieri, l'ambiance est plus perceptible. Dans ce groupe des militants de Cellou Dalein l'optimisme est de mise. Ici, on pense à une victoire, mais au deuxième tour. On attend à notre victoire quand même. La Et la paix encore en Guinée. On peut accepter certains résultats, on ne peut pas accepter certains résultats aussi. Parce que si je dis eh, le, eh, le président a gagné largement, si, premier tour, ça on ne peut pas accepter. On peut discuter, mais on peut rien, mais on peut discuter avec les autres. Bon, si on dit on va passer au deuxième tour, ça, nous serons acceptés parce qu'on sait bien tous les sept candidats ne peuvent pas, et euh, personne ne peut avoir une majorité absolue. L'élection qu'on a, vu, qu'on a, qu'on a suivie, c'est impossible qu'on accepte les résultats. parce qu'il y, beaucoup de mascarades électorales quand Certains qui disent que l'organisation n'est pas bien fait, euh, ce qui est essentiel pour nous, nous a voté. Quoi qu'il advienne, les deux partis appellent à la retenue au respect des résultats qui sortiront des urnes. Il faut que chaque leader appelle son militant de calmer, de calmer, rester tranquillement et attendre le résultat. Que la paix règne, que meilleur gagne, que la vie continue. ce que je souhaite. Certains de ces Guinéens établis dans la capitale sénégalaise déplorent par ailleurs les lenteurs notées dans la publication des résultats définitifs, un fait qui ne se justifie pas à leurs yeux vu l'évolution des technologies. Aminata Mbaré Sow, merci. C'est la fin de ce bulletin. L'info revient à 8 heures en Wolof. Merci de l'avoir suivi. nous remercions toute la rédaction. C'était le premier journal de ce mardi. Merci d'être avec nous. Nous vous remercions. Euh, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Merci à Fatima Badjakate qui nous a présenté le premier journal de ce matin. Un autre rendez-vous est prévu dans quelques minutes. Ce sera à 8h pour le Wolof. mbokk yi mbaa jàmm ngeen euh, fanaane journalu bi ci français la woon ñu ngi ci àndoon ak euh, Fatima Badjakate Fatima ñu ngi lay gërëm bu baax Miss Matam euh, ca di nga dellu si fileeg ay minutes pour journal bi ci wolof lay bi nga ñu euh, jukkee ci ay xibaar ci euh, français xanaa rek li nga ñuy defal léegi euh, mooy gindi ñu ak jaww ji météo bi lay doon comme ni ñu koy defee fajar gu jot xam ngeen ni ñooy télévision bi leen di jox xibaaru jaww ji fajar teel balaa ngeen di génn seeni kër bu ko defee ngeen am aperçu température bi fan yëpp mu ngi tàng lool te Fatima fan yëpp yaa ngi ñuy wax ni octobre non seulement ce sera le mois le plus long mais aussi mooy weer bi nga xamee ni moo gën a tàng parce que dégg naa ñu naan mooy annoncé jeexitalu. nawet bi. Hmm, euh, Pape Cheikh euh, noonu la mooy annoncé njeexitalu nawet bi waaye itam ñu waaj a dugg ci beneen euh, weer di novembre foofee xam nga ne dinañ sentir tuuti ngelaw lu sedd seddaay bi itam di annoncé wul mais laata loolu tàngaay gu metti moom lañu ñu gis fépp ci réew mi muy fii ci dakaar muy ci gox gi yeex gox goxaat yi ci biir Sénégal tàngaay moom la ñu fa nemmeeku moo xam ci suba si wala bokk ci ngoon gi waaye ci suba tel gi moom température yi ci boori bët saalumu di tane tuuti ndax foofe eh, dinañu yeewoo ak 24 degré fu ci mel ne Kédougou Kolda ak Ziguinchor Tambacounda itam 24 degré lay yeewoo Dakar bokk ci ñi gën a am eh, ñi am température yi mag ci suba teel gi 27 eh, degré Saint-Louis 26 degré Podor ak Matam itam 27 degré la ñuy yeewoo Linguère 26 degré Diourbel 25 degré Kaolack 26 degré température yooyu dinañu yéeg ba yegg 41 degré di température bi gën a mag ba tey dinañ ko am ca Podor ak Matam bi gën a tuuti 32 degré fii ci Dakar lay doon Saint-Louis dina am ci ngoon gi 35 degré Linguère dina am 40 degré Diourbel ak Kaolack dinañ am 38 degré Tambacounda ak Ziguinchor 35 degré Kolda 34 degré ak Kédougou dina am ci ngoon gi 35 degré ñu wax ci marée yi géej gi nag jamono ji dafa wàcc loolee mi ngi door bi ñaari waxtu ci guddi tegalee juróom fukki simili dina wàccaat itam bu ñetti waxtu ci ngoon tegalee eh, juróomi simili eh, géej gi nag dina yéeg bu ci kanamee tuuti bu 9h tegalee 5 minutes dina yéegaat itam bu 21h tegalee 25 minutes ci guddi lay doon nappkat yi nga xamante ne dañuy dem eh, géej di wuti jën moment yu gën a am solo ci bëccëgu tey gi instant bi may wax ak yéen 7h19 8h19 19h23 ak 20 h dina doon ay moment yu am solo. ci ñi nga xamante ni dañuy dem géej di wuti jën euh, jant bi nag moom fenk na ay simili ngi nii bu juróom-ñaari waxtu tegalee benn simili ñu ngi yaakaar itam mu soo bu juróom benn waxtu ci ngoon tegalee juróom fukki simili ak benn Pape Cheikh mooy li gën a fës ci xibaaru jaww ji. moi je m'attendais à ce que nga wax comme ni xale yi waxee ins bi ins yi gën a baax comme ñoom ins bi la ñuy wax ah <laughs> euh, dama doon xaar nga ni ins yi gën a baax pour dem nappi mooy xam nga mooy gaayan heure yooyu nga xamante ni xam nga mooy ins baax quoi euh, pour dem nappi lay gërëm bu baax Fatima Ba Diakhaté mu nekkoon euh, météo tey euh, tombé ak mardi 13 euh, octobre 2015 bu weesoo jaww ji ñu jàll ci yéen kaay yi qu'est-ce que vous allez lire tey lan ngeen nar a lire ci yéen kaay yi bu fekkee amagu leen ñoom l'observateur ak ñoom seen ñu jox leen seen i xët laata Mamadou Mouhamed Ndiaye di yegsi ci plateau bi pour xóotal ko ci biir revue de presse bi alors daanaka yéen kaay yu ci ëpp tey xëy nañu ak même titre muy renouvellement bi nga xamee ni mooy am ca nationale l'observateur loolee la xëyee ak euh, changement la ko tuddee ca assemblée nationale alors ñu ngi ci wane euh, nataalu président Macky euh, moom nee na que personne ne vienne se lamenter il faut respecter la discipline de groupe la parité sera de mise loolee la ñu liir ci xëtu yéenekaay bi di l'observateur waaw Pape Cheikh moom njiitu réew mi démb mi ngi dalal groupe parlementaire majorité bi fële ca palais ñu waxtaan ci coppite yi nga xamante ne nam nañ ko indi ci bureau xalaat moom président Macky Sall ne nag ay coppite eh, dina am te leneen lu mu bëgg itam moo di ñu respecté eh, parité maanaam fu ñu lim benn góor jigéen topp ci ginnaaw ga loole ci eh, waxtaan yoo xamante ne amal na ko démb ak député yi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar mu lool leen démb ca palais de la République ñu waxtaanee renouvellement bureau assemblée nationale. loolu mu ngi jëm ci composition bi yees bu bureau assemblée nationale loolee yëpp changement la ko tuddee ba xëyee tey tudd ni Macky annonce des changements. des changements moom président Macky Sall wax na ko nee na ay coppite dina am ci euh, bureau bu bees bi nga xamante ne euh, dinañ ko euh, taxawal ni ki tey ji ci ngoon ay coppite yu am solo ba tax na sax moom président Macky Sall mel mel na kuy artu parlementaire yi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ci coalition benn Bokk Yaakaar ne bu fi kenn ñëw ne leen dala bett wala dara moom liñ ci war a def xam na ko te ay coppite dëgg dina am ci bile groupe bureau bu bees bi ñuy waajal taxawal. yéenekaay bi di Sud Quotidien euh, guerre de positionnement la ko tuddee loolee la def ci xëtam tey euh, moom itam wax ci euh, li nga xam ne ni moo am ca assemblée nationale nee na foofee mu ngi nekk dans tous ses ecla dans tous ses éclats assemblée nationale ndax moom moo xew tey moom la ñuy waxtaanee tey actualité bi moom moo ko dominé ak renouvellement bureau bi mu mel na tey Pape ni ko yéenekaay bi waxee du yomb diggante ñi nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk nguur gi ak ñi féete ci kujje gi ndax ñoom tam. am nañu plan daal bu ñu tëral boo xamante ne bëgg nañu ñu gën leen yëg ci assemblée nationale. yéenekaay bii di populaire ci xëtëm bu njëkk loolee nga xamee ni moo am ci assemblée nationale yëpp daanaka xëyee ko tey ci seen i xët épreuve de force la ko tuddee. épreuve de force Pape Cheikh dara du fa dara du tuuti tey foofu daanaka dina xumb lool assemblée <laughs> tey bu ñuy renouveler bureau boobule ba tax na yéenekaay bi ni épreuve de force moom la ko tuddee ndax ku nekk di nga ci bëgg a wone sa bopp. lu jëm sax ci loolee nga xam ni moo am ci assemblée tey jii tur bi ci gën a fés te yéen kaay jotaayu xibaar yi ci rajo yeeg ci télé yi xëyee ko moo di Modou Diagne Fada ak ki nga xam ne ni moo di euh, Aïda Mbodj ñoom nag ñu ngi bokk ak kii di euh, maître Wade euh, bu dee yéen kaay bii di quotidien nataalu Modou Diagne Fada ngi ci waaye ñu ngi ciy tudd ki nga xam ni moo di Omar saar bu réew mi nar a jëm bennoo Bokk Yaakaar loolee muy règlement de compte entre libéraux lool la ko yéen kaay bi tuddee ba bind ci xëtam bu njëkk ni Fada renvoyé waar wi waaw euh, ndax euh, euh, xam nga ni Pape Cheikh yi ñoom dañoo bëgg rek ki nga xamante ne moom moo di Aïda Mbodj jiite seen groupe parlementaire opposition bi yëpp sax ndax ñoom dañoo nam taxaw rek ngir janoo ko nguuru président Macky Sall ñu ne nag le fait ñu bëgg a dindi tey Mour Diagne Fada teg fa ki nga xamante ne moom moo di Aïda Mbodj loole ay mbir la yoo xamante ne président Abdoulaye Wade moom moo nekk ci ginnaaw mais Mour Diagne Fada moom mel na ku nangu yëf yi ne ànd loolu ndax Aïda Mbodj daanaka ñoo bokk bokk gis-gis mu euh, yéenekaay bi di Le Quotidien nag ne euh, Modou Diagne Fada mel nañu moom delloo nañ ko euh, ci waar wi moom Modou Diagne Fada ndax boo moyul du du nekkati ca bopp bureau parlementaire bu libéraux yi. moo tax man wër yooyu loolee la yéenekaay bi di enquête xëyee tey def ci nataalu ñaari njiit yi bokk ci parti boobule muy maître wadd ak kii di Modou Diagne Fada ñu ngi liir ci xëtu yéenekaay bi ni Wade perd la partie. waaw ndax yéenekaay bi di enquête moom dafa président may euh, président Ablaye Wade bu dee dafa annoncé woon Aïda Mbodj foofu noonu ci ngir mu wuutu euh, ki nga xamante ni moom moo di Modou Diagne Fada su fekkee ni lim ci jublu woon moo di fexe ba euh, jaxase leen maanaam su ma ko mënee waxee lool mel na ni loolu mujjta antu ndax moom Modou Diagne rafetlu na tabb gi nga xamante ni bëgg nañ koo tabb ki nga xamante ni moom moo di Aïda Mbodj nee na ñoo bokk gis-gis buñ ko tànnee benn la moom daanaka amu ci benn jafe-jafe mu ne lu mu mel na loolu li ci président Ablaye Wade jub bëggoon amu ko mu ngoog grand place sax loolu xëyee ba tuddee mbir mi euh, l'ère de la parité ñu ngi ci gisaale euh, nataalu ki nga xam ne ni moo di Aïda Mbodj am na mbir yoo xamante ni euh, yéenekaay bi def na ci gëstu ci loolee nga xam ni moo am ci ay coppite ci assemblée nationale surtout ak taxawaayu libéraux yi. Mhm. waaw moom Aïda Mbodj mi ñu annoncé ci groupe parlementaire bu libéraux yi waaye itam président Macky ci boppam mi sàkku ñu respecté parité loolee tax yéenekaay bi ne parité moom xamante ne ñu ngi koy taxawal. député yi euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo ànd ak euh, kii di xalifa euh, Sall fi mu toll tembe yéenekaay bii di direct info mu ngi ñuy xamal ni danoo boycotté président Macky Sall. waaw ñoom mooy euh, maire yi nga xamante ne dañoo ànd ak xalifa Sall ku ci mel ne Idrissa jàlloo dégg nañ ko démb fii ci télévision Futurs Médias mu doon ŋàññi rek liggéey bi nga xamante ne président Macky Sall mi ngi koy def moom nee na rafetlu ko benn yoon maire bu Dalifort boobu lee ñu fàttalil moom bokk na ci maire socialiste yi nga xamante ne dañuy jàppal tànk Khalifa Sall ba tax na ñoom dafa mel ne dañoo taxaw temm ngir rek jano ak président Sall ndax nee nañ même bu dee tanoor waxagul dara ñoom dinañ am seen candidat boobu. ci wàllu jumtukaayu xarala mooy technologie wala TIC euh, yooyee ay jumtukaay yu yees la euh, jëm ci wàllu technologie yéen kaay bii di réew mi moom la xëyee ay mbir yoo xamee ni dëkk yu bëri yu mag yi ñu ngi koy tuumaal États-Unis ab laaj sampu ndax Sénégal euh, duñu dem ba mu tuumaal Amérique ndax ñu ngi ñuy xamal ci xëtu yéen bi ni bëri na ci ay site yu sensible ci internet américains yi ñu ngi koy surveiller laaj bi samp nag mooy ndax américains yi nekkuñ di espionner Sénégal. waaw loolu ab gëstu la boo ko waxee samp ab laaj ne am nay site yoo xamante xamante ne mi ngi fii ci Sénégal daanaka américain yi euh, dañ ciy bàyyi xel bu baax a baax euh, buñ euh, mën nañu wax sax ne xam nañ lépp loo xamante ne mi ngi ci xew ba tax na sit bi di laajte ndax américain yooyu leen nekkuñu di espionner Dakar Sénégal ci lépp loo xamante ne jëm na ci wàllu actualité wala doxalinu réew mi yéenekaay bii di Zoom dafa xëy tey dugg ci biir kaso bi ak kaso la bu nekk ca Jurbel mu ngi ñuy xamal ni bëri ci ay prisonniers yoo xamee ni euh, jugé guñ leen moo tax ñoom ca bopp tey ñu ngi amal ab grève de faim prisonniers yooyu nag euh, Fatima ñu ngi tollu ci 53. waaw juróom fukk ak ñetti prisonniers yoo xamante ni ñu nga fee ca Jurbel ni nga ko waxee Pape Cheikh euh, door ab xiifal ñoom li ñuy xamle moo di ne yàgg nañu lool ci kaso bi te ba léegi kenn waxul dara ci seen i mbir ñu ne nag bu nekkoon nit ku màgg mooy xam politicien wala ku siiw daal dinañ lijjanti say mbir mu gën a mais ñoom daanaka ay at ñu ngi ci kaso bi waaye kenn waxul euh, ci seen ay mbir loole tax ñu door ab xiifa yéenekaay bi di stade ku ne xam nañ dafa yëngu ci wàllu tàggat yaram moom li mu xëyee tey mooy li ñëpp di xaar di match bi nar a am ci diggante euh, Sénégal ak Algérie loolee euh, jongante xaritoo la ñu tuddee ko match amical euh, tey ji ci ngoon lay am bu 19h30 jotee alors defe naa ab duel jëm ci wàllu stratégie jëm ci ñaari joueurs yoo xamante ni kenn ki daanaka kàngam la ci équipe bu Sénégal keneen ki di kàngam ci équipe bu Algérie muy Fagouli keneen ki di Sadio bu suñu équipe nationale Sadio Mané waxtaane xam naa certainement la ñu xëyee tey ñoom. waaw euh, match amical bi nga xam euh, bi nga xamante ne war na dox diggante Algérie ak Sénégal la. Euh, mhm. Pape Cheikh ni nga ko waxee match la boo xamante ne du yomb ndax bu ñu fàttalikoo Coupe d'Afrique bi mujjee Égypte Algérie foog naa moom moo tax Sénégal ñibbi si ñoom ñoo leen éliminé woon mu nekk match boo xamante ne amical mais am na solo lool ci gaynde yu Sénégal. wala mu nga ko loolee match la bu nar am tey jii ci ngoon bu 7h30 jotee waxtaan nañu tamit ak ki nga xam ni moo di Mamati Mbengue di ancienne Lionne bu bu basket bu Sénégal mën ngeen ko gis ci xii yéenekaay bi di stade euh, Fatima Ba Jaxate ñu ngi lay gërëm bu baax mu nekk revue des titres maanaam euh, xëtu euh, yéenekaay yi ca kanam ay 9h et quelque daañu àndandoo ak Mamadou Mouhamed Ndiaye bu ko defee mu xóotal ko ci revue de bi ñu ngi lay gërëm bu baax Fatima Ba Jaxate ñu jox leen li nga xamee ni moo di taux de change bi bu ko defee ngeen mën a xam boo dee coppi boo dee soppi CFA ak yeneen xaalis yi ci ñaata lay tollu fi mu tollu tembe amul ay coppite yu bëri ci bis yi yëpp dañu koy njëkkee ak euh, xaalisu Amérique di un dollar alors un dollar chinois euh, fi mu toll tembe mu ngi toll ci cinq cent soixante quinze virgule huit cent soixante neuf euh, bu dee un euro di xaalisu France par exemple Italie Espagne ak dëkk yooyu le bu dee un euro mu ngi toll ci six cent cinquante cinq virgule neuf cent cinquante sept bu dee xaalisu Angleterre ak yenn ci ay dëkk mu ngi tudd livre sterling mu ngi tollu ci boo ko dee wecc ci ak CFA mu ngi toll ci 884 euh, virgule 798 euh, francs CFA xaalisu Chine mi ci dévaluation bi bu yàggul boo ko deewee ci ak CFA mu ngi tollu ci 90 euh, virgule 9525 500 9253 francs CFA voilà loolu mooy tolluwaayu CFA ak xaalis bi nga xamante ni moo di xaalisu Chine ngeen di ko gis noonu ci écran bi ñu jàll ci euh, heure de prière yi euh, waxtu mees yi pour suñu mbokk chrétien yi euh, loolee itam bëgg nañu ngeen bàyyi ci xel dañu koy njëkkee ak waxtu julli pour suñu mbokk julliti bu dee suba teel mu ngi tollu comme ni ngeen koy gisee noonu ci 5 heures cinquante maanaam 6 heures moins 10 ci la ñuy julli fajar moom la ñu ko julli sax d'ailleurs tey jii ci suba gi bu dee tisbaar jullee mu ngi tollu ci 12 heures 57 maanaam 1 heure moins 3 bu dee tàkku takkusaan ñoo ngi koy julli 16h19 euh, maanaam 4h19 ci ngoon ci la ñuy julli takkusaan euh, bu dee timis dinañu ko julli euh, laata 7h di jot maanaam 18h59 muy 7h moins 1 minute bu dee gee daañu ko julli bu 8h jotee ba tegal benn minute muy 20h01 loolee mooy waxtu julli ñu jàll ci waxtu mees yi pour suñu mbokk chrétien yi ci jàngu yëpp li ko tàmbalee cathédrale ba martyr de l'Ouganda bu dee cathédrale ci fajar gi bi 7 jotee am na mees waaye dina amaat mees tey jii ci ngoon gi. gi bu 18h30 euh, jotee ca martyr de l'Ouganda am na mees tey ci fajar gi bi 6h30 jotee dina amaat mees tey jii ci ngoon bu 18h30 jotee euh, ca église bu Saint-Joseph euh, foofee dina am benn mees tey jii ci ngoon gi bu 18h30 jotee. loolee waxtu julli yi la woon ak waxtu mees yi ñu ngi leen di ñaanal cëg bu neex ci télévision Futur Média 7h42 mooy doog a jot laataa ñuy àndaat ak rédaction bi euh, ci journal 8 beek ki nga xamee ni moo di euh, Fatima Ba Diakhaté laataa ñuy ànd itam ak suñuy coach euh, pour li nga xamee ni moo di yeewu gym tey daañu ci àndandoo ak waa Rahmadam fitness dañuy dem ci horoscope bi dañ ci ànd suba gu jot ak Zeyna. day Seynabou waaw Baye Cheikh naka suba si suba saa ngi nii baa jàmm nga fanaane jàmm rek tey baa baa doo jaxase dara déedéet tey du ma jaxase dara fa ma daan tàmbalee rek laay tàmbalee Pape Cheikh nuyu téléspectateurs yi euh, tey di mardi octobre 2015 mhm. commencé euh, bi ak bélier yi démb lion yi la ñu commencé woon tey dañuy delluwaat ci bélier yi euh, ñu ngi leen di wax ne c'est la grande forme qui vous attend su fekkee ne def ngeen li nga xamante ne moo ca war def leen un peu de le matin seen sud te yéen a ngi am envie relever de nouveaux défis woo leen nag seen benn xarit et demandez-lui que mu mettre leen sur le coup d'une nouvelle rencontre taureau yi nee nañ leen tey jii kat seen forme dina euh, améliorer wu nettement su fekkee ne vous prenez plus sérieusement soin de vous euh, tey jii kat surtout en début de journée ñu ngi leen di digal que ngeen considérer seen bopp comme le centre du monde xalaat leen seen bop avant que ngeen xalaat qui que ce soit. Gémeaux nee nañ leen nag ñoom moom seen forme tey ji foog ñu retrouver ko parce que dafa am ay mbir yoo xamante ne ñu ngi xew te dafa mel ni dafa commencer à les taper sur les nerfs euh, ñu ngi am nag une envie folle de tout résoudre maintenant ñu jël le temps nag de def aussi quelques mouvements de gymnastique avant que ñuy entreprendre quoi que ce soit. waaw bu ko defee voilà ça la permettra de euh, suivre say say ak gi leen signe bi jox. dëgg la Pape ñan la sax. Euh, Gémeaux yi waa Gémeaux. kon Gémeaux peu de gym. voilà un de gym ci matinée bi <laughs> euh, cancer yi nag ñu ngi leen di wax ne tey jii dina am ay intuition curieuse ak ay réaction contradictoire yoo xamante ne dinañ ko gis au cours de la journée loolu yëpp nag mënoon na nekk loo xamante ne da leen di merloo wala mu énervé leen waaye heureusement ko ñoom seen forme mi ngi fi te dara mënul entamer tey jii kat seen bonne humeur d'accord Lions yi nag ñu ngi leen di wax ne su fekkee ne dafa am euh, euh, seen i ay projet financier dañuy rencontrer jamono ji un obstacle particulier dina doon loo xamante ne dina leen dégoûter vraiment waaye ñu ngi leen di digal ñu armee wu de patience bu ñu baisser les bras nañu xeex pour jot li nga xamante ne moom la ñu bëgg. d'accord. Vierge yi euh, nee nañ leen une décision importante tey jii dinañ ko jël sans pour autant que ñu consulter leen ñoom nag gis nañ ne décision boobu dañ ko jël tout petit peu à la hâte waaye heureusement que dinañ gis une personne boo xamante ne dina leen dimbale ba ñu trouver les solutions qu'il faut pour calmer le jeu. d'accord. balance yi nee nañ leen ñoom itam nañu jël. Euh, un peu de temps pour def euh, quelques mouvements de gymnastique parce qu'il est sain de se sentir bien dans son corps mais aussi dans son esprit ñoom nag gymnastique bi tey ñoom lañ ko gën a digal parce que ñu ngi leen di wax ne tey dans la journée nañu bouger bu baax bu immobile. D'accord. ma ñëw ci scorpion yi nag ñu ne leen euh, bu ñu bàyyi seen i ay affaires personnelles ak financières jël le pas ci seen ay désirs personnels te jii c'est le moment de réorganiser li nga xamante ne moom mooy seen i ay priorités te bu ñu hésité euh, jox li nga xamante ne mooy seen i ay affaires personnelles bu ñu hésité def ci seen énergie yépp ba mu aboutir. après lion yi après scorpion yi sagittaire yi euh, jamono ji nag dafa mel ni euh, ñu ngi gis ne dañu leen di devancer bu baax a baax dans une affaire sérieuse boo xamante ne ñoom yitteel na leen te ñu ngi siy impliqué wu bu baax il est convient nag de veiller au grain su fekkee ne vous voulez rester en tête du peloton waaye heureusement la chance est à votre côté Capricorne yi nag nee nañ leen tey jii dinañ am la sensation que le monde entier est à leurs pieds dinañ gis ne nag def nañ exploit bu rëy certainement l'exploit de leur année euh, dinañ leen ci félicité bu baax a baax nag te suñ ko defee tamit euh, dinañ ci kontaan dina nekk loo xamante ne dina leen fierloo ci ñoom. verso yi nee nañ leen laisser la chance vous provoquer dans les affaires peu importe lu mën a xew nag tey jii kat vous ne perdez pas grand chose à essayer à condition nag ngeen garder la tête froide tey jii su fekkee ne da ngeen doon xalaat jouer à des jeux d'argent fexe leen ba bu leen ci dugal koppar bu bari ba pare ak poisson yi ñu ngi leen di wax ne ñu ngi am ay dout euh, au sujet de la réalisation d'un projet boo xamante yi yitteel na leen mais rassurez-vous car vous gagnerez grâce à votre détermination seen forme physique tamit mi ngi fii forme physique bu baax ngeen yor tey jii te lépp loo xamante ne mooy effort di ngeen ko def euh, pour réaliser seen ay ambition Pape Cheikh loolu la horoscope andi woon mais merci yaa ngi jeexal donc comme euh, ak poisson comme d'habitude ah loolee horoscope bi la ak Zeyna lañ ci doon doon euh, àndal euh, ci kanam dinañu àndaat ak yow ak internet euh, alors fi mu toll tembe ñun amoon nañu sunu sunu lu nu tàmm lu tuddoon info de ouf d'ailleurs c'est ce que tu me ah, disais tout à l'heure voilà ne ma mooy hashtag bi souvent on a tendance à penser que am na lu ñu xam foog ni ñeneen ñi xamuñu ko. qu'est-ce que vous pensez savoir et que vous pensez que les autres ne savent pas. loolu mooy info de ouf souvent ñun on vous donnera nos infos de ouf mais est-ce que internautes yi ca kanam. certainement Pape Cheikh bu ñu joxee suñu ay info de ouf ba pare c'est sûr que internautes yi tam am nañ seen i ay info de mais est-ce que toi tu en as est-ce que amul benn affaire boo xamante ni xam nga ko nga foog ni kenn xamu ko. Qu'est-ce que si. tu sais et que tu penses que les autres ne savent pas. Xam naa ko mais j'ai pas envie la... de le dire. Mais dis-le, on veut juste savoir. <laughs> S'il te plaît. Nous on appelle ça info de ouf. Euh. Dis ça. Euh. Mais dis-le. Euh. mais di le non, mais allô quoi. oh mais woo. Oh <laughs> mais eh sa yoon nekku ci. Eh, ah, ngi xaar ba nga dugg fi ba toog fi rek. qu'est-ce que je t'avais dit attends dugg fi lan laa la sànq yow bu journal bi commencé dinaa la. <laughs> voilà tu verras tu verras <laughs> toog mairie comme ni ñuy comme ñoom Mado comme ñoom Mado ni ñuy yéegee escalier yi <laughs> bon eh soyez sérieux may mun euh, Zeyna dafa war a wax quand même ah voilà alors dis-moi jox ma sa info de ouf qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu penses savoir et que tu penses que les autres les autres ne savent pas euh, bon d'accord je vais le dire et eh, Mado s'il te plaît tu me traites pas de fanatique ah voilà kenn ku si nekk uh-huh. c'est la première fois que je le dis kenn ku si nekk ak nu mu mën si demee mën nga ñaanal sa bopp à condition que li nekk fii méngoo ak li nekk fii. Ah. d'accord mais ça tout le monde le sait. Elle n'a pas compris le principe. Ah bah tout le monde le sait. Mais ça tout le monde le sait. Bah, justement je pensais que personne ne le sait. Ah. voilà. <laughs> et pourtant c'est de ouf d'accord léegi leneen nee li ngay ñaan na nekk fii après mu nekk fii. pour mu jàpp c'est à condition mu nekk fii ok mais yaa ngi ñaan yaa ngi koy wax. mais sa bi mi ngi dem feneen. yaa ngi xalaat leneen. ok et pourtant c'est une info de ouf ah y a quelqu'un qui savait ça ah. <laughs> waaye tàcc leen ko waay. non ah, baaxoo et am naa beneen info de ok vas-y encore. te taa dégg ñun ñooy a. c'est pas une info de ouf loolu moom diffamation de ouf. <laughs> bon yéen wax leen ñu ko euh, Zeyna dina ñëw ak seen ay commentaires ci kanam et puis euh, bu fekkee am na lu ngeen xam foog ni ñeneen ñi xamuñu ko ça peut être une information par exemple hier je faisais ma star je disais que euh, xam naa loo xam ni xamu leen ko tabax nañu mosquée bi gën a mag Europe mu ngi nekk Russie ki ko inauguré di Vladimir Poutine même si j'ai demandé à la production de ne pas écrire santam parce que suñu ko bindee tem ñu ko lire lire autre chose que Poutine parce que boo ko dee bind da ngay bind P U T I N c'est comme ça qu'on écrit le nom ah. du président russe La liée Poutine. Voilà. Donc j'ai demandé ah, à la production de ne pas écrire son nom. C'est pour éviter bu fekkee am na ñuy seetaan ñu wàññi seen télé du dégg li wax. après ils vont se dire waa TFM qu'est-ce qu'ils ont écrit encore. C'est vrai. Hein? <laughs> ndeysaan bon allez ñu jàll ci. <laughs> Eh, dama am info dañuy jàll dañuy jàll ci d'accord c'est quoi ton info euh, dañoo découvrir euh, benn euh, bactérie boo xamante ne peut-être que mun na may nit yi ñu am vie éternelle. <laughs> man de am man pour man sa bës dafa méngoog sama bës. yow nii lañ lay bàyyi fajal. c'est vrai dañu dé dañu découvrir dafa am ay scientifique yu ko découvrir. bactérie bi am na 3,5 millions d'années te deewul te c'est des sur des conditions extrêmes. Euh, si euh, glace yi lañ ko fekk. c'est quoi bactérie bu ñuy dugal ci nit après. nit bi nit donc du coup scientifique bi ko découvrir daf ko piqûre boppam en deux ans. ba tey deewul Ah. Euh, il s'est rendu compte que dafa il pense qu'il rajeunit <laughs> et que ci ay souris la ko njëkk je te jure <laughs> des des des amoo gàcce sax yow amoo gàcce sax yow fajar gi ngay uuf nii ça c'est une information. Mais c'est vrai. D'accord. Oh, mais, mais c'est On te croit. Vous pouvez rechercher sur eh, internet. c'est C'est c'est une université ñoom ñoo def. loolu mooy objectif info de ouf en souris souris yi ñu ko testé dañoo màggetoon. et que yow c'est pas ça mu ngi seetaan. <laughs> yow bu fekkee respecté ils ont commencé à avoir des des petits. Alors que ah Donc on a ah. découvert ça dans une université russe que c'est une bactérie euh, bu ñu tuddee cure de jouvence. D'accord daf lay tax gudd fan doo dee daal day mel ni en fait da nga rajeuni. effectivement ah c'est une info de ouf ça. recherchez euh, ça. Madeleine Ndiaye qu'est-ce que tu as comme euh, info. tu as vu Gervais ici. ok on va chercher qui vient de TV5 normal mu xam ñun xamuñu dara. <laughs> moi j'ai pensé à deux choses comme bi nga wax ni moom laa mhm. dégg. Mhm. mais ñu ne boo xamante ne tubaab yee ko gis pour faj cancer. que cancer léegi du amati ben on l'a vu il paraît qu'ils ont jubilé pour ça beneen bi par contre mooy que euh, waa FIFA. ñun ñoo leen ëpp employé ñun waa groupe GFM. et eh, ça c'est une info de ouf que nga jox ñu chiffre bi. FIFA ils sont employés dans le monde. d'accord ñun nag bëgguma catu suñu bopp. balaa on est 700 ñaata. nous on est à ñun groupe GFM donc. d'accord on est presque 700. et eh, ça c'est une info de ouf donc groupe Futurs Médias moo ëpp agent ah, wu FIFA. IFA euh, dégg ma naan IFA euh, euh, FIFA ñoom ñiy liggéey ci àdduna yëpp ñu ngi toll nga ni ci ñaata ci 400 quelques alors que groupe Futur Média euh, mu ngi toll ci 700 et quelques donc c'est c'est selon un sondage bu jógee fan ci Madoa ci kenn ku ma ko yónnee <laughs> tamit <laughs> ça c'est une info de ouf euh, Maïmouna économie qu'est-ce que tu as comme info de ouf ou qu'est-ce que tu penses savoir et que tu penses que les autres ne savent pas bon man benn affaire peut-être que euh, Sénégal ñu bëri dama jàppoon man personnellement oh oui c'est ça que fécondation in vitro mooy ñi nga xamante ni mënuñu am mm-hmm. doom. Uh-huh. ñu jël euh, sen euh, spermatozoïde plus ovule. waaw bu góor bi uh-huh. ak bu jigéen bi. seen mélange ñu jël bu góor ak bu jigéen ñu def ko nii après mu def dugal ko si si si uh-huh. implanté ko si. jabar bi ko muy kii alors que ndekete am na ay 2000 bébés yoo xamante ne au Sénégal juddu nañu fi. Mm-hmm. ah, ah ça existe mais moi je sais pas aussi. c'est juste que c'est très cher. 2000 bébés. au Sénégal si si. am na ñoo xamante ni dañu am doom. grâce à des bébés éprouvettes lañ leen di woowee. on dafa cher mais est-ce que dafa am fii Sénégal. parce que ah, tu savais que am na ñu ko def tu connais ay nit yu ko def. Oh, ko kanam bu kanam bu ñu paaree bi kii nga di oh. waaye dool du ngeen ma cadré day naan ñu tey ci gi neex. Pape Cheikh xëyee nga ma de. du ngeen ma du ngeen ma filmer kii. waaye lu ma la def. xaaral xaaral ah, ma posé question bi s'il vous plaît. waaye euh, xam naa ne xam nga lu ma ci neex. cadrel ma kanam bi non non non bul tontoogu te kat dañuy répété répété ay réponse ñoom ñëpp fan yi alsi nee na ma dem c'est pas une coiffure c'est une perruque <laughs> kenn musul gis loolu mooy mbi fa foore noonu xamuñu ni man fi mu nekk nii nitu weñ laa nitu dénk <laughs> weñ laa maa ngi ñëw ci yow léegi Alfi nee ma c'est pas une coiffure c'est une perruque léegi ci Zeyna beaucoup tu as cadré son visage <laughs> alors nga ne in vitro mi nga xamante ne ñun dañoo foogoon ni amul Sénégal yow wóor na leen am na fi am na xam naa sax fi mu am juste que bëgguma def publicité hmm. mais est-ce que da xam ko ku ci am doom man xam ci am xam nga ah, li ma yaay naan ma sa kanamu seetaare bi moo tax xoolal kanamu kanamu waa ma jiibam bi mu indi fajar gi et mais ça lu ma ne Pape xam naa ne ñi ngay def nii yëpp fajar da ngay xëy rek bëgg leen <laughs> xam naa ne da nga maa bëgg <laughs> c'est comme quand quelqu'un me disait yow ba seen série bi doo mujjee takk kolle yàlla na ma ci yàlla musal donc ça ça c'est une info de ouf ça existe et puis man xam naa ci koo xamante ni elle a eu deux bébés d'accord grâce à ça ah ben c'est bien et elle était bon déclaré stérile et tout. mais il a pu avoir des débuts. oui Zeyna disait que ça coûte cher ah. xam naa peut-être loolu moo tax c'est pas très fréquent au Sénégal mais am na fi quand même am na ay nit yu am doom grâce ak loolu ñu tuddee in vitro. entre fourchette daal 2 ba 3 millions si diggante ah, d'accord fécondation in en tout cas comme chaque jeudi am nañu rubrique boo xamante ni c'est sur la chimie ak science. Euh, peut-être que tu feras tu feras tu feras un reportage dessus. Euh, comme ça ñu mën a comprendre parce que euh, mooy xale bu juddu xale bu juddu d'habitude ci parce que ñi koy def d'habitude dañuy mënul am doom. Mm. ah ci bu kii bu naturel bi. donc dañuy dem ñu jël seen kii wu jëkkër. après dugalal leen ko jaarale ko ci ay piqûres. rek ci ay ñoom seen pour ñu am doom ndax kon tey tubaab man de tubaab ci tubaab laa war a dem bi ma demee fii ci euh, hôtel bi nekk fi fii ci ginnaaw dama publicité bi ma taxawee ci buntu buntu bi ibbee ko dama ne eh tubaab <laughs> barke yàlla xoola waa óolu hôtel bi di ma xool cest yàgg naa gis loolu sax mais yeex dafa ma impressionné comme si musuma ci musuma ko et quand je taxaw rek euh, ci bunt hôtel bi bunt bi damaa ñëw jib ko rek mu ne ma ne laa ilaaha illallah tubaab bari man xam moo <laughs> nii laa ko waxee naan Maurice. mais parce que man xam nga ban moo ma xaw a kii. chaque fois du ma ko mën miis mooy robinet yi nga xam da ngay def nii sa loxo. yow mu toog mu toog wallaay mais dama lay wax beneen bi de. <laughs> Eh, yéen a ngi jël ay hashtag Zeyna arrêtez avec ça. <laughs> parce que loolu defe naa lundi prochain di ko laajte qu'est-ce qui vous impressionne euh, ci création wu être humain ça c'est vrai que moi j'ai l'habitude de voir buntu yooyu di ibbeeku. Eh, yéen da ngeen foog ni ay caaxaan laay wax barki Serigne Touba du caaxaan de uh-huh. damaa taxaw buntu bi ibbeeku rek ma ni Touba bari. waaye dañu bëri woon c'était quoi. je sais pas mais daal sama. Ah, voilà quoi ça m'a. tu sais ñun ce qu'on faisait quand on était enfant. <laughs> ça m'a impressionné xam nga lu ñu doon balaa ñu doon gis tubaab dafay ñu ngi waxtaan de comme si on a le temps. tu vois franchement et on a <laughs> franchement pas le temps. ah nos coachs sont en train d'attendre ah, regardez-les ils sont oh, donc actuellement euh, ah, info de ouf <laughs> voilà regardez gis ngeen ni euh, suñu euh, coach yi taxaw nañu ci biti pour jox ñu ay exercices et pourtant il est exactement sept heures et cinquante huit minutes alors coach balaa ñuy ànd ak yow Mayel Alfi mu wax ñu info de oufam. xam nga man ci nekk rek Pape Cheikh laay dox. ku la coiffé. ku la coiffé. Mounas coiffure. démb nee na ma démb nee na ma soxna ma wane ma yow samay wax waaw kay démb nee na ma doo coiffure perruque la. ay projet waxee ma la ko noonu. alors de ouf on finit avec toi. donc est-ce que xam ngeen meilleur meilleur euh, pâtissier de France. mais waxoon nga ñu ko c'est un sénégalais. non master chef laa fi waxoon. Ah. bi mais meilleur pâtissier bi kan la. c'est pas un certain Diédhiou ou Diatta dafay commencer mercredi bi après demain sur M6 à 19h45 ah tu parles de Masterchef ou quoi. meilleur pâtissier de France. meilleur pâtissier c'est sur tf c'est avec des amateurs. d'accord d'accord que des amateurs en en pâtisserie. d'accord mooy amateurs ñi nga xam ne pâtisserie rek mooy seen. mais c'est des professionnels. non non non c'est des amateurs. ñoo xamante ne dañu bëgg euh, pâtisserie te la ñu compétition. d'accord meilleur pâtissier de France. c'est très différent de Masterchef. de Masterchef donc mercredi euh, après demain lay commencé. il paraît bu Sénégal. ay <laughs> <laughs> Eh, j'ai une autre info de ouf. Ah, On vient de m'annoncer que j'ai été nommé nouveau directeur euh, chargé de foutre dehors certaines personnes à la télé. comme kii par exemple kon <laughs> dinaa chantage ay nit. kon dinaa leen wóolu sama bureau chantage leen. Mado day dàq ñëpp des moom kese. waaw waaye dina def émission yëpp. boppam. <laughs> bon soyons sérieux maintenant Fatima Ba Diakhaté elle est déjà en place est-ce que Fatima mën nga may mais 8 heures jot pense qu'il va encore nous il notre coach nekk waxtaan donc dites-nous lan ngeen yaakaar ni xam ngeen ko et que ngeen foog ni ñeneen ñi xamuñu ko partagez avec nous vos infos de ouf euh, sur notre euh, page Facebook euh, Zeyna va lire vos commentaires tout à l'heure bu ñu dee bëgga a jeexal yeewu leen bi donc yeewu leen tamit c'est un réseau social puisque c'est la meilleure matinale du Sénégal 8 heures jot na ñu bàyyi leen ak Fatima Ba Jaxate ci journal wolof bi bu ñu noppee ñu ñëw àggali suñu lu baax Vuelo, vuelo, vuela. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak télévision Futur Média xibaar yi ñu doore kook bureau bu assemblée nationale bi ñu nar a yeesalaat ni ki tey jii PDS nag ñoom euh, joxoñ baaraam tuuma jëwriñ bi ñu dénk wàllu biir réew mi di Abdoulaye jàll loo xam le ne moom moom daal dafa taxaw ngir bëgg a jàppale ki nga xamante ne moom moo di Modou Diagne Fada ci xeex bi nga xamante ne bëgg na koo sumb ak yeneen i frères am libéraux ci renouvellement euh, groupe parlementaire libéraux boobu lee la ñuy euh, des ndax Aïda Mbodj moom la ñu xam le ne mooy doon président bi waaye ki nga xamante ne moom moo di Modou Diagne Fada mu ngi koy rafetlu bu baax a baax ndax jàpp na ne euh, présidente conseil départemental bu Bambey boobule ñoom ñoo bokk gis-gis ñoom ñoo bokk itam lu ñu gëm ba tax na bu ñu ko joxee boobule post ab mbir la moo xamante ne da koy rafetlu loolee nag Pape Birahim Ndiaye ak ñi mu àndal gisee wuñ ko noonu ñoom lu ñu jàpp moo di ne jamono ji dañuy xeex Modou Diagne Fada ci biir parti démocratique euh, sénégalais ñu teewlu ci Mame Biram Diouf Mardia maître Abdoulaye Wade andi coppite ci groupe parlementaire libéraux démocrate Aïda Mbodj wutu Modou Diagne Fada ci poste président bi Pape Birame Ndiaye ni loolee bettu ko. parce que Wade ba mu waxee mbir mi àllarba ca ñaari waxtu vingt heures ca guddi comité directeur bi ne ñoom jox nañu carte blanche Abdoulaye Wade or nit ñi xamoon nañ ne Abdoulaye Wade déjà. te te te ñaari waxtu wax na ci position jox na ci information yi. ki fi doonoon député doonoon it njiitu mel ne fonk na lool dogal nga xam ne Abdoulaye Wade na ko waaye la mu nanguwul mooy lañ ne moo tax ñu changé Modou Diagne Fada. Modou Diagne Fada muyewul le maillot il n'a pas en trop mouillé le maillot la libération de Karim Wade ñetteel bi ñu ne pourquoi Modou Diagne Fada di wax ne moom mooy plan B n'est-ce pour mën a euh, wutu Karim ci élection ñu gis nañ ñetti argument yooyu yëpp ça ne tient pas la route et que du xalaatu Ablaye Wade mais xalaatu ñi ko wër la. assemblée bi fi nekk ñu ngi leen fal euh, juin 2012 donc euh, déjà renouvellement bureau assemblée octobre lay am octobre 2013 bu dee jigéen affaire bu parité jigéen moo woon na jiite groupe parlementaire ca loo woon na tàmbali bu ko defoon ca jamono boobu mën nañ gëm ne euh, moom parité bi loolu mooy dëgg. mais boo xaaree quand même octobre 2015 ngay wax waxu parité loolu wax sa sax na. ab cadre de concertation gu ñu taxawal yaatal ko ci parti Rewmi UCS Bokk Gis-Gis AJ/PADS ak FSD BJ loolee war a tax ñu taxawal ab grand groupe parlementaire doon ab xalaat bu rafet. man gëm naa ne si démocratie chaque nguur yi dañ ko def fexe ba nax naxasal na naxasal euh, opposition bi ku jël politique bi loolu du loo xam ne lu baax la si démocratie parce que. li nga xam ne moo am ci démocratie mooy tey da ngay suba sa morom. lu mu bari di député libéraux doon lu Oumar Sarr numéro 2 parti démocratique sénégalais bëgg ak ñi mu àndal li am solo nag mooy parti démocratique sénégalais ñu yeesalaat ko. président du groupe parlementaire mais Aïda Mbodj mais signataire mais waral ndomi la Aïda Mbodj a été dans tous les combats de notre groupe li ñuy xeex lay xeex li ñuy wax lay wax. te Aïda Mbodj dafa mës a wax ne sax moom waxtaan yi ñu ngi koy wéyal ak yeneen ngir xeex bi ñu amal ci wàllu yoon ak it wàllu administration ñu gañe ko ci talaata gi président Macky Sall dalal na ni ki démb groupe parlementaire majorité bi di député yi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ci coalition benn Bokk Yaakaar waxtaan ak ñoom xamal leen ne ay coppite dana am ci bureau bu assemblée nationale ak lu ci mënti am itam nañu sàmmanteek li nga xamante ne moom moo di parité maanaam fu ñu tudd góor jigéen topp ca loolee le président Macky Sall xamle ndaje moomu nag mi ngi am ci teewaayu njiital assemblée nationale di Moustapha Niass ak secrétaire général bu parti socialiste di jan ci euh, bureau assemblée nationale boobu lee la ñuy des ndax jàppale ne procédure bu mag la commission yi ñi teg ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy ŋànk loole yëpp bokk ci liy doxal institution bi bu ñu sukkandikoo ci maître baabu moom nag sekk ab euh, waxtaan bu yaa ki nga xamante ne moom moo di Faty Dieng ak Mar Dieng session unique bu pencum ndawi réew ma daañu ko tijji ci talaata ji lu jëm ci bureau bi groupe parlementaire yi ak loolee ñu naan commission la mbir mi soxal règlement intérieur def ni bis bi ñuy ubbi assemblée nationale su boobaa war nañoo taxawal ñetti kuréel yi nga xam ni mooy doxal assemblée nationale bi ci njëkk mooy bureau bi ñaareel bi war nañoo teg góor groupe parlementaire yi ñetteel itam war nañoo teg liy doxal commission yi assemblée nationale. assemblée nationale nag dina am bureau bu bees. waaye nag coppite yooyee soxalul benn yoon mandat wu président assemblée nationale. dañ ni woon président assemblée nationale at mu nekk lañ koy euh, fal léegi soppeeku na léegi président assemblée nationale delloo nañ ko gëdd bu mu amoon bu njëkk maanaam pal gi juróomi at la te yoon def ni application immédiate maanaam kon danañ ko appliquer élection yi ni mu doxee euh, ku ci nekk sa doole. su dee groupe parlementaire bu APR xam nga ñoo ëpp doole fi mu nekk le plus souvent ñooy rafle vice poste vice président yëpp. lu jëm ci ni ñu taxawalee groupe parlementaire yi tam nekk lu am solo bu nu sukkandikoo ci maître Babou enjeu yi bëri na lool te wute. député yi euh, téeméer ak juróom fukk la ñu cent cinquante donc soo amee un dixième mooy ñaata fukk ak juróom soo amee fukk juróom mën nga taxawal groupe parlementaire. soo nekkee groupe parlementaire. doole ngay am ñu lay déglu boole ci ci yoon soo dee kontaanoo par exemple ci projet de loi soo nekkee quinze wala plus de dixième de l'assemblée soo la neexee yóbbu ko conseil constitutionnel. commission yi itam kenn debul ñu des seenu taxawaay lu am solo la ci doxalinu assemblée. règlement intérieur assemblée en fonction doole euh, maanaam député yi dañ naa la yow wara nga mën a am. juróom-ñaar ba juróom-ñetti commission su ma jumul ëpp na fukk commission yooyu yow mi nga xam ni am nga temps de commission la la règlement intérieur jox yow da ngay désigner sa président yaa koy désigner soo désigner sa président su assemblée ubbi day am benn liste boo xam ni dañ naa la installation commission des lois tel jour à telle heure. ibbi teg session bu assemblée nationale bëri na ñu koy xaar. bokk na ci askan wi ci boppam ak ñi leen teewal ci pencum ndawi réew ma Faty Dieng ñu koy jaajëfal bu baax a baax ci wàllu njàng mekk njàngale mi la ñuy yegg si wax ci syndicat bi ëmb inspecteurs yeeg inspectrices yi janoo ko taskatu xibaar yi ñaaw lu nag ni nga xamante ne noonee la nguur gi doxalee jàpp nañu nguur gi sàmmante wut ak diggé yi nga xamante ne jël na ko seen diggante ak euh, ñoom ñu ne nag ci ndaje mi nga xamante ne amaloon nañ ko du dara loo xamante ne tukkee na ca ba euh, tax na yooyu lee jàngalekat di sàkku ci nguur gi mu xoolaat doxalinam ni mu gën a gaawee leneen itam li ñu waxtaanee waat moo di euh, parlementaires yi ñu teewlu ci Pape Fara Gningue Modou Diop. syndicat inspecteur ak inspectrice yu éducation nationale bu Sénégal ñu ngi ñaawlu ñàkk a sàmmonte gi nga xam ne nguur gi defoon na ko ci accord yi ñu xaatimoon ne nañ daal seen ndaje mi njiitu réew mi amuñ ci mbégte lool naam sax bu dee am na ay dikk yu fa njiitu réew ma def. gouvernement bi dañu woon lépp loo xam ne xaatim nañu ko danañ ko respecté duñu xaatim lu mënul respecté. ak inspecteurs yi mu xaatim ba def ci ay délais yii mu def ko janvier yii 2015 yii février yii mars 2015 délais yooyu tey respecté ci dara du benn bu mu ci respecté lépp ba tey jii ba ñoo ngi toll ci octobre 2015 ay digg rek ñu ne nag lii suñu ko bàyyee fa mu jëm lu baax ci système bi. syndicat bi di woon ñi di naataangoom yi nag ñu daal di taxaw temb ngir yooyu engagement ñu daal di koy respecté rawatina ci wàllu heure supplémentaire yi. heure supplémentaire yi lépp gouvernement bi moo ko indi ndax depuis 2011 bi texte RFP yi taxawee dañu leen na ngeen wut ay matuwaay yu baax ci loolu mais ñu daxasaayal ko mu yéex lool tey muy bind naan nañu ko dañu téye heure supplémentaire alors que dañu jàpp ne dañu war a weesu sax heure supplémentaire. li ñu nemmeeku ci gone yi nga xam ne dañuy bàyyi lekkool mu daal di bëri lool loolu tamit jaaxal na leen. seetlu nañu ne am na lu ñu naan indicateur ay nattuwaay yu am solo yoo xam ni tey mi ngi naax saay ñu ne kon bu ñu moytuwul lii ram ca ñag ba la jëm ah loolu yëpp li ko waral nag mooy taxawaayu njàng mi ah malgré moyens yi ci def dañu jàpp ne des na des na ci programme yi ak projet yi. rawante nag lu ñu daan paquet programme bi nga xam ne moom la ñu war def améliorer qualité bi ak équité ah dafa poser ay problème naataango Samba Jaxate yi ñu ngi daal di artu ci ni nga xam ne noonu la ñuy doxalee ci école bi ngir ñu daal di am réussite ci wàllu paquet bi naka noonu ñu ngi ñaawlu résultat yu bon yi nga xam ne gis nañ ko ci examen fin d'année yi. Pape Fara Gningue syndicat bi itam àdduna ci fraude bi nga xamante ne moom moo amoon ci concours élèves metre yi ñoom nag li ñuy xamle moo di ne jëwriñ bi ñu dénk wàllu njàng meeg njàngale mi da ci yéex a àddu lool seen secretaire général bi moo ni waxee ne nag am nañu yaakaar ne fileek daal ay fan yu néew dinañ ci am lu leen leer Samba Jaxate du ñàkk ngeen déglu ko ci suñu yeneen jotaay xibaar ñu wax ci wote présidentiel bi amoon ca Guinée ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo bi ñoom ab fraude daal dafa am ci scrutin bi ba tax na ñuy sàkku ñu niilal premier tour bi waaye itam di sàkku ci guinéen yépp ñu wàcc ci mbedd mi amal daal ay euh, manifesté guinéen yi nekk fii ci Sénégal ñoom euh, di sàkku ñu respecté résultat yi nga xamante ne moom moo nar a tukkee ci urne yi euh, li ko defee nag yooyu les guinéen ne sax ñoom njort nañ ni deuxième tour dina am ngir rek départage ñi nga xamante ne ñoom ñoo di candidat yi ñu teewlu ci ab reportage bu Aminata Mbaré Sow Thierno Laurent Mendy marché Castor ñu fekk fi askan wi bàyyeekoo ca Guinée Thierno ak Bangali Camara ñoom ñaari partisan lañu kii di président Alpha Condé ginnaaw bi ñu voté ba pare ñoom fi ñu nekk ni seen xel dal na ndaxte jàpp nañ ne seen président bi dañ koy tegaat ci bopp réew mi. Alpha Condé laa bëgg bu gañ Alpha Condé c'est président oui président. Rue Sandi Ñeri mooy feneen ci biir Ndakaaru. ci groupe nit yi toog nag bokk na ci ay partisan partisans Cellou Dalein Diallo ñoom tamit seen xel dal na waaye li ñu jàpp mooy résultat yi deuxième tour la jëm ndaxte kenn mënul gagné ci premier tour bi. voté naa sama candidat Cellou Dalein Diallo mooy sama candidat moom laa moom laa moom laay xaar moom résultat boobu laay xaar sama victoire bi laay xaar. bu ñu waxee largement le président sortant gagné na kooku du raisonnable bu wax nañu ne. dañu dem deuxième tour kooku raisonnable dañu war a deuxième tour parce que duñ kenn duñu am majorité absolue ci vote bi waaw parmi les sept sortants liñ ci mën a doon ñoom ñëpp ñuy woote jàmm ñu jàpp ni li waa seen di joxe loolu la ñu war a respecté. li may wax population bi euh, résultat su génne ñu nangu doxal bi bisee doxal yàlla la. seen i pareegul pour élection bi mu ngi defee élection élection. quand même c'est pas facile qu'on accepte les résultats ñu accepte résultat bi dañu war a noppi parce que woot nañu di transparent dañu toog xaar résultat bi moo gën ci ñun. waaye yal na ci ay Guinéen li ñu taseel jàpp nañ ni tamit mun ñu comprendre ñu toog lu ëpp ñaari fan te résultat définitif yi xamlewuñ ko ñu jàpp ne fi mu toll ni technologie avancée na ba résultat ci bés bi rek mën nañu xam ku gañ gagné ak ku ñàkk. Aminata Mbaare Sow ñu koy jaajëfal yéen it naka noonu ci teewlu bi rédaction bi dina fi teewaat beneen benn waxtu ak yeneen xibaar laata loolu yeewu leen day wéy ak Pape Fatima Ba Jaxate Miss Matam ñu ngi lay gërëm bu baax mu nekkoon journal 8h bi ci wolof euh, ca kanam daañu àndaat ak euh, rédaction bi dina tombe ak euh, benn waxtu jot ci diggu bëccëg bi lay doon alors normalement ñun bu ñu dee def émission dañuy yore ay kayit ñu ngi ko tuddee conducteur ci lañ ñuy bindal li ñu war waxtaane normalement ci émission bi léegi yenn saa yàlla boole la ak nit ngeen bokk liggéey nga bëgg ko mais moom daf lay bañ ci pet loolu moo dal biisu ci sama ak moom donc sama conducteur normalement li ma war a wax daf ko jël xotti ko pendant que j'étais dehors pour prendre mon café voilà donc fii laa mujjee ak moom kalaame naa leen ak moom nag xaw ma lan ngeen ko war a wax parce que tooñ weesuwul nit ki li mu war a liir nga jël ko xotti ko te lii tooñ bu rëy la vraiment alfi lan laa ko def xam nga li dàqam xaj na ci lan laa ko def lan laa ko def bijou lan laa ko def bon je serai obligé de faire comme ça jërëjëf <laughs> jërëjëf yàlla na leen sama àq daal doo nit lañ ma wax waaye xaw ma lu tax ñu wax ma lool de toute façon je vous demanderai des explications tout à l'heure 8h15 mooy doog a jot laataa ñuy dem ci yeewu gym euh, comme tey dañu ko xaw a dëpp on a beaucoup discuté ba temps bi dem euh, donc ñu jàll ci suñu correspondant yi tey nag dañuy dem dëkk bu ñu naan Sédhiou euh, Sédhiou bu ñu fa demee dañu fay fekk Bakary Konté Bakary xam ngeen ni mooy suñu xarit parmi tous les correspondants Bakary Konté la fekk donc Sédhiou bu ko defee ñu mën faa taataani xibaar mën a gindeeku ci li nga xam ne ni moo xew ci dëkk boobu ci euh, Sédhiou yi ñu ngi lay nuyu mbaa jàmm nga fanaane waaw jàmm rek euh, Pape naka affaire yi. waaw ah, ça va ça va ñu ngi góorgóorlu rek. noonu la naka tàngaay bi sànq rek Fatima Ba ci euh, météo bi mu ngi ñuy xamal ni quand même Sédhiou xaw na tàng tuuti. waaw tàng na bu baax sax bu tuuti sax. <laughs> tàng na kay tàng na ba léegi ba léegi taw baa ngi ñëw aussi quoi. d'accord yàlla baax na lu ñu fa mën a jàpp nag cay xibaar bu weesoo tàngaay beeg taw Sédhiou. ok lu ñu mën jàpp ci ay xibaar booy euh, Malick Gakou nekk euh, responsable grand parti. moom mm-hmm. nag moo nekk actualité semaine bi fii parce que bu mu fi ñëwee dafay yëngal dëkk bi euh, bu mu fi duggee nag dafa def benn caravane ci quartier yëpp nekk fii ci diwaan bi. ba pare nag dem gis imaam yi nekk ci commune yi waxtaan ak ñoom bu mu waxtaan ak imaam yi nag ci la gis jaxe jaxe yu bëri yoo xam ne nekk ci région bi ci la ko imaam yi wax. Eh, ci la ci déclaration sax mu ne ci am na ñoo xamante ne ñett plat quotidien yi eh, ñu bëri duñ ko am bu ñu añee du ñu reer ñeneen bu ñu ndékkee du ñu añ donc mu nekk ki wax xibaar boo xamante ne moom la fi gis bu mu gisee itam yoon yi nu ñu yàqu ak stade municipal bi nu mu mel ak eh, ravin yi nekk ci Sédhiou canalisation yi bon yi ak problème déclarage public moom daal mu ne dafa mel ni nguur bi dafa fàtte Sédhiou ba mu ne ci programme am dina euh, def benn programme spécial pour Sédhiou euh, ci ay mu ne tamit dina interpeller gouvernement pour vraiment ñi mën a jàppale dëkk bi ndaxte dëkk bi dafa nekk en arrière trop moom nag bu mu ñëwee mu ngi amal eh, rayon mu ci siège AFP maanaam benn gaynde benn responsable bu ñëwee Moustapha Koli eh, foofu la siège AFP nekk foofu la ñëw def déclaration mu am ñu bëri ñoo xamante ne ay responsable parti politique ak yeneen formation politique ñoom ñëpp eh, jógee seen parti ñoo fekk ci donc mu nekk loo xamante ne moom la mu nekk visite boo xamante ne dafa nekk actualité bu mag ndaxte parti bu bees la mais nit yi lu ñuy gis fii ci Sédhiou dafa am adhésion bu mag boo xamante ne dafa nekk ba léegi daal loo xamante dañ koy waxtaane nit yi bëri dañ ko bàyyi xel donc mooy nag actualité bu gën a rëy fii ci Sédhiou ci ci semaine bi ñaareel bi mooy Oscar des vacances boo déggee Oscar des vacances nag di nga jàpp Oscar des vacances bu nekk dakaar Sédhiou tam dañuy amal chaque année Oscar des vacances mu nekk benn promoteur bu ñuy woowe Omar Kanté donc vacances ah Bakary Bakary xanaa Aziz Samb léegi Sédhiou la dëkk je blague loolu réseau bi la donc Oscar des vacances la ñuy organiser foofu non c'est ça. très bien activité bu neex la pour vacances yi. voilà ñu ngi jéggalu ligne bi baaxatul mais daanaka. koo dégg laataa réseau bi di dem euh, moom euh, Bakary Konté moo ñu teewal foofee nga xam ne ni moo di euh, Sédhiou ñu ngi koy gërëm bu baax mbokk yi ñu ngi leen di ñaanal bëccëg bu neex ci télévision Futur Média mardi 13 octobre 2015 laataa ñuy jàll ci yeewu Jim ce qui vous attend bokk na ci désormais tous les mardis am na lu ñu tuddee le test de Mado lépp lu jëm ci wàllu loisir créatif ak bien-être yu am solo surtout pour góor ñi def ci dox bu baax alors elle a fait le tour de certains coins la capitale avec une cravate effectivement Pape Cheikh comme ni nga ko waxee maa ngi nuyu mbokku téléspectateur rek donc comme tu l'as dit aujourd'hui on a fait un test avec une cravate à savoir est-ce que nit yi mën nañ takk cravate bu ci bu ñu ñëwaatee aussi ñu jox leen ay astuces comment bien attacher la cravate. parce que franchement du ñëpp ko mën quand même. effectivement. ah oui mm. c'est cool donc c'est des tests yoo xamante ni tu feras ça désormais tous les mardis euh, pour xool nit est-ce que yi ngay jàngale ci semaine bi mën nañu ko. c'est magnifique ça. bon on ñan ak ñan ñooy tester. lisez euh, euh, testament de Butaï vous verrez que euh, ça vous intéressera et puis comme chaque mardi soit ñu waxtaane lépp lu jëm ci wàllu koom wala ñu waxtaane lépp lu jëm ci wàllu droit tey jii ak Maymuna dinañu waxtaane li ñu tuddee assurance voyage li tax li sabab nag gëstu bi mooy bërki démboo njaay màkk bi ak coow yi nga xamante ni am na fa ñaare boo dee waxtaanee assurance boo ci amee boo amee ay jafe-jafe dañu lay fay alors màkk bi voyage la assurance voyage voyage alors lan mooy njëriñam surtout ci ki nga xamante mooy tukki. voilà Pape Cheikh def nañ benn gëstu dem xool koo xamante ni la dans l' assurance am ci mhm. société. Mhm. mu expliqué ñu déjà lan moo tax nit war dagg assurance voyage. Mhm. soo daggee assurance voyage bëgg mu jariñ la à quel moment ngay def réclamation. mais aussi assurance voyage bi nga xamante nit yi dañ koy dagg. yan risque lay couvrir Pape Cheikh. donc loolee ca kanam lay doon bu fekkee bëgg a a euh, moo ñu koy jagleel Diarra depuis mercredi mardi dernier euh, dafa commencé série reportage ci ñi nga xamante ni ñoo nekk parmi nous waaye di wujje am na ay tubaab yoo xam ne dañuy wujje euh, loole euh, mu ngi ko commencé mardi bale le passé tey daf koy àggali quand la coépouse est une blanche bu fekkee ki ngay wujjeel nit ku weex la naka ngay toppatoowee sa sëy ñoom ñi nekk parmi nous est-ce que miin nañu yenn ci ay fee mu jigéen loolee Kiara dina ko waxtaane ca kanam ci pàcc bi nga xam ne moom la ñu tuddee parmi nous comme tous les mardis euh, bisu culture la entre autres euh, dinañu waxtaane yu am solo yoo xamante ni mën na tax ngeen miin agenda culturel bu Sénégal euh, dinañu wax ci festival bi nga xamante ni moo di Gorée cinéma ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko initié dina ci bokk ki nga xamee ni moo di Jogay Ramata moom tamit di artiste boo xamante ni ñëpp xam nañ ko et puis dinañu waxtaan ci festival boo xamante ni mu ngi tudd euh, Only French on recevra waa Frère Guissé ak beneen waykat boo xamante ni c'est un jeune sénégalais qui vit en France et qui qui fait partie euh, des initiateurs euh, de ce festival donc loolee Aïssatou Paye Fall lañ cay àndal bu ca kanamee pourquoi tey mu nar a neexal émission bi dafa de ak anniversaire am mais on lui chantera la chanson d'anniversaire tout à l'heure buy commencer rubrique bi Aïssatou merci d'être là donc ci kanam culture dinañu waxtaan ci am yu am dinañu wax ci euh, clôture festival clôture cinéma sénégalais bi. Mhm, mhm. dinañu wax ci mbalu wàllum téere. Mhm. Euh, agenda culturel comme d'habitude. et un clip un de xalam. boo xam ni depuis 79 lañ ko defoon. ci festival de Berlin. ah d'accord donc c'est un clip boo xamante ni tu l'as retrouvé c'est ça. dem ba Berlin jël. waaw dama demaat dama delluwaat. je suis retournée en d'accord sa caq nee na putu ci sa baat nii la Alfie on la retrouve aussi dans quelques minutes euh, bu ko defee mu toggal ñu euh, euh, sama benn yaay maman Rose celle qui me dit tout le temps Alfie boo demee dafa def chirurgie esthétique ma ne ko botox la def mu ne ma déet dafa xotti dafa xotti loxo bi ça je vous raconte ça depuis un moment dafa xotti loxo bi dugal ci ay safa safa pare ñawaat ko moo tax mu saf loxo donc tey di ñu toggal gratin de pomme de terre et poulet. tout à fait Pape Cheikh bonjour ñi ñuy seetaan bonjour Maman Rose <laughs> donc ci kanam Pape Cheikh avec les Boursofia on va réaliser benn gratin boo xam ni c'est composé de poulet et de pommes de terre donc euh, commencé nañu. Euh, précuire poulet yi Pape Cheikh xam naa bu ci kanamee bu ñu ficcee rek ma expliquer la naka lañ koy defar d'accord loolu ci kanam lay nekk et puis euh, ci dernière partie bi diggante 10 heures jàpp 11 heures di ngeen mën a bokk ci yeewu leen bi bu yaboo ngeen woote léegi euh, bu ko defee ngeen mën a daas fanaanal ci 88 628 <laughs> man dama foog ni Youssou Ndour moomul télé bi ay chinois ñoo ko ibbi dénku ko ko <laughs> non non impression boobu laa am ay animateurs yoo xam ne lu leen neex la ñuy wax. c'est incroyable di def lu leen neex ci télé bi en direct télé bi est-ce que ay chinois moomuñu ko sax. <laughs> defe naa télé bi Youssou moomu ko de bon on te retrouve tout Bijou Sy <laughs> pour parler mode on fera notre voyage habituel exactement parce que tu as funé archéologue en modologie en modologie ak 2090 2030 ak 2090 il a permis de Euh, xool yan tendance mooy nekk en vogue année yooyu dinañ ci tout à l'heure mhm. ak euh, les photos qui font ah. euh, scandale actuellement ci internet bi un partout dans le monde mhm. parce que photographe bi dafa inspiré wu ci crise u réfugiés yi mhm. pour def séance de photo donc on va en parler tout à l'heure et on finit ak Ibadou Fashion parce que actuellement il y a un réel marché par ouais. C'est vrai, on a mm. parlé il y a deux ans, ouais. je pense. y a un vrai marché au niveau ça. mondial. C'est mm. ce que vous avez remarqué que ak ci domaine yëpp ah bu ñu waxee benn affaire ci Yeewu Leen bi quelques jours ou quelques périodes après dañuy gis ni dafay xew ci dëkk bi. C'est cool, n'est-ce pas que c'est la première matinale du Sénégal. Oui, on porte chance. Ah parce que saa ñu waxee ci affaire laal yokku yow dama bàyyi. laal yokku désormais kuy baadu dara bu dee dara la baadu yàgg laal yokku xamoo ñu. tur bi rek yow xamoo yeewu leen laal yokku. muy kii fu ne. xam nga laal yokku. defal naa mbaadu dara ak ah, bu dee dara mbaadu yàgg. voilà et puis suñu invité yi ñu ngi préparé wu ci ginnaaw ah gis ngeen noonu frère Guissé euh, ils seront avec nous ils vont chanter pour nous vous vous rappelez quand ils étaient de passage avant euh, ñu jeexal deuxième saison yeewu leen bi on a beaucoup chanté. Mm-hmm. mais tey nag euh, ñoom dinañu waxtaane festival boobu tudd Only Fresh Only Only Fresh. only French only French d'accord ok donc ils vont venir chanter pour nous et puis waxtaane ak Aïssatou Faye Fall ci li nga xamante ni moo di only French et puis ce matin on a parlé euh, de li nga xamante ni moo am ci assemblée nationale di euh, groupe parlementaire bi nga xamante ni euh, mu ngi lëmb lëmbee ak changement yoo xamante ni am na fa ci café info ak ki nga xamante ni moo di Modou Diagne Fada mi nga xam ne ni moom la ñu gën a waxtaane tey surtout ci loolu nga xam ne ni moo am ci assemblée nationale alors front de l'opposition est-il possible à la plage bu samp la loolee ci café info lay nekk euh, daañ ci ànd ak Adia Talla mi nga xam ne ni ma ngay waajal ci ginnaaw en attendant euh, dañuy jàll léegi nii ci yeewu gym tey dañ ci ànd ak waa Olympique Club bonjour coach euh, excuse-moi damaa bëri wax léegi heure heure fitness bi mu jotee dama doon wax bisu amul xorom mado amul xorom maymuna amul xorom alfi amul xorom zeyna amul xorom di ma mbii fa foore ak ko wax ça va tey yow rek a ñëwa ah? alors qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui j'ai présenté un concept uh le grid le un cours uh-huh. de 30 minutes uh-huh. à haute intensité d'accord des options d'accord ok allez kon ñu bàyyi la nga dem ci c'est parti grit la tudd waaw mais nga fay xadisaar bu yeboo nga concentré wu en yaayu faa comme ça nga yëngal sa yaram tuuti daf ciy baax c'est parti Ngom ni Ngom n'est pas là aujourd'hui aujourd'hui je suis là donc pour présenter un cours de grit alors c'est le cours de de 30 minutes n'est-ce pas ça se fait au club et euh, c'est un cours à haute intensité donc tous les groupes musculaires donc super intense et là je vais juste l'échauffement n'est-ce pas Parce qu'avant de faire quoi que ce soit, n'est-ce pas, dans l'entraînement, il faut commencer à faire un bon échauffement. Alors, si vous avez un disque à côté de vous, vous prenez, sinon vous avez une bouteille d'eau. Ok Alors, musique guidée, on va démarrer avec le squat. Deux en bas, deux haut, deux haut. c'est parti, single. Ok, le bas s'éloigne derrière. Vous gardez la poitrine fière. Les abdos engagés. Les coudes au-dessous du disque. 3, 2, squat, presse. Squat, presse. Squat, presse. Échauffez-moi les jambes avec le squat. Et échauffez-moi les jambes. Les bras, les épaules Rien n'est épargné. Encore. 4, 3, 2, stop. Posez le bras et vous avez le squat jump. Un peu plus dynamique et un peu plus de cardio. Ok, allongez. Évoluez vers le plafond, de bas à haut. Ok, vous avez maintenant les strombopies. maintenant on peut plus vite. Go. One, two, three. One, two, le bassin loin derrière. Baissez le bassin, les derrière. Encore. Restez. En planche triceps. Nous allons pomper. les épaules. Ok, le corps Descendez jusqu'en bas et repoussez le sol. Dans 4, dans 3, dans 2. Basculez les jambes à gauche puis à droite. C'est parti. Fixez-moi les épaules. Serrez les abdos. Ce n'est que la suite, marchez avec les mains, 4 fois,

sauter et deux pas en arrière. One, two, three. One, two, three. On va terminer avec les fentes. Pose le disque. Ok, on termine l'échauffement maintenant. Descendez jusqu'à ce que vous ayez le cuisse, parallèle au sol. Ah, là, je suis là. Hein? 4, 3, 2, stop. Ok, on va enchaîner avec les abdos. Passer au sol. Flexionnez les jambes. Les bras ici. Allongés. Le long des jambes. Impulsion. Là, vous renforcez vos abdos supérieurs. Aussi encore, allez chercher les orteils. Encore les dames. Poussez. encore monter en puissance. Deuxième mouvement. On cherche la main externe et cheville. Ok. Encore. Au sol. Go. On continue les Avec impulsion des bras. Encore. 4, 3, 2, flexion latérale. Ok. Levez les épaules. flexion à gauche puis à droite. Subissez des membres les abdos Encore. 4, 3, Maintenant, on est en planche. On va renforcer les obliques. Genoux, je Un peu plus vite, c'est parti. One, two, one, two. Contractez les abdos maximum. Descendez le bassin. Le poids du corps Allez les champions, poussez encore. 4, 3, 2, stop. Ok, l'eau revient Planche triceps toujours. Nous allons grimper. C'est parti. Serrez les abdos. Ramenez le genou vers la poitrine. Le genou le plus près

vous êtes invité. voilà je vous remercie. on viendra tous. merci coach. ok nu mu tudd nga ni euh, chorégraphie bi. lutte force lutte. grit force ah grit d' accord d' accord nous okay. on viendra suivre ça. incha allah incha allah donc je rappelle que il faut toujours ngeen am habitude di dem di seeti professionnels yi surtout coach yi nga xamante ni ñu ngi ñëw ci euh, merci coach damaa bëgg a feeñ il faut nga pousse nag ci caméra bi. merci. taxawaat sama kanam caméra rek. yow professionnel nga rek nga bëgg a mën nga fay rek mu bëgg a takki mool c'est incroyable pourquoi ils sont comme ça allez le retrouver à Olympique Club ou au Olympique Club c'est ça dépend de euh, de nu koy waxee quoi de toute façon ñoom ñëpp ñu ngi fa masse ainsi de suite euh, bu ko defee ñu jox leen ay exercices juste après cette page de pub on se retrouve pour Café Info tey dañuy xaw a dëpp affaire yi parce que voilà on a pris euh, suñu temps di waxtaan wax lu ñu neex ci info de ouf yi mais bon ça montre que Yeewu Leen tamit c'est un réseau social c'est-à-dire ni yi ñuy toggee ci plateau bi waxtaan waxtaan pour ngeen mën a yeewu euh, comme il faut on vous souhaite encore un très bon mardi on parlera euh, de li nga xamante ni moo jëm ci coppite yi am ci assemblée nationale ak yenn ci ay libéraux euh, loolee bokk na ci sujet yi ñuy waxtaanee ci café info grâce ak Adia Talla on comprendra l'actualité et puis juste après comme on vous l'a promis dinañu dem ci yu am solo yoo xamante ni yéen lañ ko préparé ñu ngi jëm ak yéen 11h ci télévision Futur Média yooyu yëpp nag ce sera juste après cette page de pub